xam ne politique bi jërul yenn yi surtout rawatina ak bakkan euh, di jaale ñi nga xamante ne bi jot nañ cee ñàkk seen bakkan di ko naqarlu di ko di ko di ko tiisu euh, di la xamal ne aussi coow li bari na waaye foog naa wolof yi am na am na am na lu ñu di wax nee nañ coow la ci bind ba ñëw baa ko waral waaye ñun ñu am baag kenn déggul ñuy wax dañuy root rek dem te président foog naa li mu wane ci réew mi ful yi nga xam ne moom lay drainer de manière spontanée fu mu dem mbooloo mi topp ko mbooloo mu jeex moo xam ne kenn mësu koo gis loolu foog naa ne sign la ci nit ñi ni ñu takkoo ak ni ñu taxawee ngir delluwaat ko réew mi ndax moom moo leen doy te loolu aussi moom moo ko liggéey bu ñu xoolee les réalisations yi nga xam ne def na ko fi en en sept ans bii wax naa ko kenn du ko defee ci bilan kenn du ko wax waxi bilan parce que xam nañ ne bu ñu bu ñu duggee ci bilan mu mu daaneel leen kon rafet nañ njort ci ne nit ñi bu ñu demee ba ca mañ ngàcce wa ca ca urne ba di di di ca dugal enveloppe ba danañ bàyyi xel li nga xam ne réalisé na ko ci ci Sénégal muy 491 mille emplois muy 120 milliards pour trois cent mille familles muy der bi nga xam ne jigéen ñi ak ak ndaw yi ñoo ko bokk te fii ci Touba am ci loo xam ne mën na 1 milliard cent millions. muy autoroute Ila Touba bi nga xam ne defal na ko Serigne Touba pour une valeur de quatre cent seize milliards muy pont ba nekk ci Gambie pont bi nga xam ne ñu ngi ko bëgg a commencé ci ci ji nga xam ne ma nga nekk ci Casamance muy PUDC muy PUMA muy tous les programmes yi xam ne teg na ko te programme bu ci nekk rek mën a yor am réew programme bu ci nekk mën a doxal am réew kon foog naa nit ñi foofee la ñuy teg euh, seen bët la la la ca topp nag mooy perspective yi ndax nee na am na yoo xam ne moom moo ko gën a yitteel ci juróomi at yi nga xam ne mooy ñëw loolu mooy lan loolu mooy ndaw ñi loolu mooy solidarité bi nga xamante ne bii war naa feeñ ci wàllu koom-koom bi loolu mooy industrialisation bi nga xamante ne war na ciy jëm également pour Sénégal loolu moo di li nga xamante ne bii aussi noonu la war a delloo Sénégal euh, ba ba ba ba dëkk bépp naat muy Sénégal dison vert kon loolu nga xam ne également ci la ci la jëm loolu ñu bàjj xel muy également li nga xam ne mooy euh, euh, l'industrie numérique ñu fexe ba mu nekk de manière inclusive kenn ku nekk man ciy jot parce que loolu àdduna si ci lay dox donc loolu foog naa mooy juróom ponk yi nga xam ne euh, teg na ko war cee war cee nag liggéey kon loolu nañ ko ci jàppale suñu boroom may ko mu àggale yéeneem et bu ñu yàlla dimbalee nag ba ba loolu am foog naa ne mu jeexal deuxième mandat keneen koo xam ne moom la yàlla teg ci réew mi aussi ñëpp ànd jàppale la ñu xam ne li am solo mooy Sénégal te Sénégal ñu ñëpp ñoo ko ñoo ko bokk loolu mooy li am solo te moom itam ci deuxième mandat bi ñi ngi koy ñaan bu yàlla joxe ba noppi na tàllal loxoom ñëpp dajale njaboot gépp ñu ànd liggéey réew mi xam ne réew mi moom mooy li ñu boole te xam ne kenn rek moo mën nekk président de la république mais ñëpp mën nañoo liggéeyal Sénégal mu nekk njariñu Sénégal di sant nag bu baax a baax suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi nekk rawatina kii nga xam ne moo di Cheikh Mouhamadou Mountakha dellu di di di di tënku ci ndigalam di ko sant bu baax di ko ñaanal aussi suñu borom yàggal ko fi ndax sagub yoonu murit la sagub lislaam jëpp la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu aussi taxawaayu la presse muy taxawaay bu am solo wane ngeen neutralité wane ngeen équidistance wane ngeen professionnalisme wane ngeen éthique wane ngeen déontologie wane wane ngeen ni for leen kenn àndu leen ne kenn asken wi ngeen fi nekkal loolu li koy firndeel mooy bi su set kenn mer leen te crédit mere tey ko a crédit mere kon for leen kenn bu doon looloo eh, ki ki benn côté rek leen mere léeg ne ci pouvoir mer léeg-léeg ñi ne ci opposition mer loolu nag c'est ngeen nekk parce que démocratie ba sax ak Sénégal am na ci rôle boo xam ne yéen yéen a ko joué et kooku également di leen koy nangul di leen ci rendre hommage et continuer ce, ce, ce, ce, rôle de, de veille et, et de conscientisation des population ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf